maa lay fay Saliya maa lay nuyu di nuyu sama waa ji sama copain bi yaa ngi sama copain bi jàmbaar la. Eh, lan mooy sama frère Bébé Ama di doom Pikine nekk champion xam nga war a bëre grand combat fii ci arène nationale bi nga ñaanal yàlla def ko di la nuyu nag Saliya di la wax namu naa Saliya gëj naa la. doom yaay. mais sa sa sa doom day sa xarit sa lépp di bëri xale bu doy waar mais am na lu ngéwél. waaw non mais lamb parce que waa ji champion la mais Ama gën a doon champion da nga ama liggéey na lu mu liggéey te yem nañ ko ah te yàgg am bis bu ne quoi li bis rek. te loo koy conseillé. li koy conseillé mooy mu dal rek parce que lamb tamit ama gën a mën a ki gën a mën a am gagnant mooy ki gën a gën a gën dal parce que lamb du ay foo quoi. waaw parce que ku lu ne ku daanu ru. ci bis le 30 décembre ndeysaan. waa Thium. waa Kara Dollé. Kara Dollé. ay moo la jàppee. loo koy yóbbu yaa la duma la duma la duma la ñu benn poids. dama lay wërloo ba tas duma la daan la maa la mën maa doole. dëgg ko teg yow. waaw mën mën Kara Dollé rek. da nga mën a yaa gën a féete a waaw fuuf. mais Kara nga liggéey de. Dollé mbaru démb la nag. Kara nee da lay bàyyi wax ji ngay wax rek. non non Kara Dollé moom alwaxaa la. non maa ngi bëri fu bëri wax. mais li nga xam ne jëloo ëppoo ma làmbi dama ni Kara Dollé liggéeyal loolu yéen a nga xeeb da xama am nga combat bu rëy ndax Pikine nga doy de man sama yoon nekkul si làmb ma waroon ak yow man loolu man la mais sama yoon nekkul waaw Malika ñëw leen ñëw leen jàppale seen frère Kara doole ngeen ñëw dooleel ko waaw mais boo leen doolu moom ah nee na ko rek xam nga mu bay a lan laay wax di waa koñ ba. mais ana waa Curuba. waaw sumay nit lañ waa Curuba waa Kaaku waa boobu Coor booy Chicago yi samay nit yi samay nit ñu baax lañ. bu baax Pikine dama fa am chaise boo xamante ni man dama bokk ci Pikine maanaam li ngay gars di waaye Euh, nuñ koy waxee di sax damaa am kii bi euh, nan lañ koy waxee di waay waaye nag may dimbali nag Sariya tamit. lan lañ leen dimbali. non non dama am loo xamante ne si ni maanaam tey jii li ma fa am ñu bëri mun naa ni foo ñu topp sama ginnaaw pour am ko loolu. parce que man sama papa fa la juddoo sama yaay juddoo fa ma juddoo fa samay maam sax fa lañ juddoo man doomu Pikine d'origine laa te waa Pikine ñu ngi waaj bu baax a baax ñoom sax ñoo may gën a waaj man. lancer leen ko message ñu jàppale ndax nit ki tamit amul lu dul dëkkam boo bàyyee sa dëkk daay dëkk jàmbur daay jëpp sa dëkk di liggéeyal sa dëkk kon war nañu amun a gestu doo xool jamal lamb ji moo ñor laay bëri nii parce que fii du sama place xeebu ma Kara Dollé ndax mbër la bu nekkoon mbër ma bëri moom te dama ko jël sans dafa nekk si kii yoru xaalis ma dimbali dama ko dimbale rek parce que mu daf ma ma mbër aw ma dépense ma ne affaire dëgër la. ay tooñ tamit. dëpp cin ah, moom waa Kara Dollé wax loolu. loolu. nee ma booy dimbali ma ngir yàlla. parce que làmb moom ay ay période la. a yaa xew. boo bëreewul ak man du ma bëre. ñaari at laa toog bëreew moom ma ne ko non garaawul garaaw naa la jàppale te yàlla mais tamit daan dem ñibbi. man bis nga koy mujjee laata. waa Kara ba bis ba. nga bu baax nag. di sama. sama sama sama doomu baay bi waa Saliya nit ku baax a ngi nii barke Serigne Touba nit ku ñàkk baax la yaa ko yow dundal rek barke Sëñ Bamba aja